a internet bi ñu nekk ak ñi nga xamante ni laajee fan la programme gàmmu bi toll ak yan mesures ngeen jël daal ci yëngal gàmmu bi. alhamdulilah gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi am mbégte lool ci di dalal Alfayda Tijaaniya di am mbégte lool ci seen kii bi di wax ne ñu ngi ci waajee gàmmu ci ndigal sëriñ bi ci turi Jamhiyatul Ansarud-Din national mais ci turi groupement départemental bu Kaolack bi. organisation bi nag fi ci toll dañuy bëgg a wax ne ñu ngi waaj a dem ci. ca yi ci mujjantal bi liñ soxla woon ci waajaay ak fuublu yëpp euh, jël nañ matukaay yi ñu war a jël pour àgg ci ñu dese rek bés ak ay ñu dese rek ay heure pour àgg ci bés bi alhamdulilah ñu ngi sant yàlla daaw ci heure bi fekkoon nañu ci jàll parce que heure bi gënoon na jafe ci ñun daaw te ren ànd ak matoon yëpp mu doon na mat heure bi fi ñu àgg ren heure bi daaw fi àgg ko ren taalibe yi jël nañ matukaay yi jël nañ mesure yi wara jël yépp pour atteindre objectif biñ daan def ci gàmm ci waajal gàmm kon ñu sant yàlla commission yëpp ñu ngi déroulé normal ñu ngi liggéey normal lépp lu ñu laajoon pour def ko ci gàmm gi liñ ci toll yëpp passé leen ko ci jàmm te alhamdulilah liñ ci war a def def nañ waaw yokkute am na waaye dañu jàpp ñun ñu ne bàyyi moo mel noonu mbiram tàmmalee ba léegi at bu ñëw danañ def danañ multiplier lii liñ defoon ci at bi passé te loolu effort yi taalibe yi la euh, loolu nag euh, dañ koy wax rek pour seedee ne taalibe yi buy nañ oote bi góorgóorlu nañ waaye aussi sëriñ bi tamit euh, li mu war a def def na ko sëriñ bi moo ubbi opportunité bi taalibe yi mën a dugalee seen loxo ci lii sëriñ bi moo ko daan def ci poosam moom kenn moo daan jàmpanteeg lépp ba pare gàmmu-gàmmu gi ñaanal ñu dem euh, taalibe yi di Ansaru Din tëralaatee tërali bu bees bi ñu ñaan sëriñ bi mu may ñu benn chance koo xam ne dañuy permettre participation taalibe yi a dugg ci liggéey tey bi surtout ci gàmmu mu ubbi benn bu tuddee Ansaru Din day organiser financer organisation bi taalibe ci góorgóorlu ñu ngi leen di gërëm ñaan di doole di ne bu kenn yéem liñ ci def mais kenn xeeb li mu am pour def ko. waaw ren bii it ñu dëkk bi am gan tey koy la matukaay jël euh, ñun dañ dama wax gàmmu gàmmu ensemble rek. mais suñu gàmmu bi ren euh, gàmmu plus la parce que dafa tombeek euh, inauguration këru gan euh, président de la république di ñëw Médina nga xam ne président de la république bu doon ñëw Médina te du gàmmu war nañ ko ful waajal ko ci popularité ak ci teewaay ci xol ak ci jëmm comme niñ koy defee tey rawatina mu ñëw toog rek bés yoon teel moom la ñoom ñun jàpp nañ ne gàmmu bi yokkute am na ci. te am na message bu sëriñ bi wax nit ñaa koy dégg sëriñ bi dafa wax ne mayut ngant taalibe mayut ngant sa dëkkandoo ci Kaolack ak fu dul Kaolack ci bés suba bi dafa bëgg ñu ñëw accueillir gan bi teeru ko teral ko mais njukkal ko te yaakaar njukkal ko su ko nit mënee taamu ku yore réew di organiser di doxal bu ñëpp jàpp ci nga doxal bu kilifa ne ñu njukkal ko mooy ñu jàppale ko donc ñu gërëm day wax nit ñi ne nañ wuyu si waaye nañ wuyu si ak teg yi te xam ne pay la ñuy wuyu si di dox ndànk dal ndànk wax ndànk teeru gan gi teral ko mais njukkal ko te ñaanal ko yàlla tamit loolu lañ yaakaar daal. incha allah ñu ngi lay gërëm ci sa taxawaay bi. jërëjëf tamit ñu gis ne temps bi xat na dëgg may wax dëgg la chargé nga lool dëgg la si man dara ci sa temps dëgg moo la dafa ngeen jërëjëf jërëjëf yoon di ñaanal yàlla jërëjëf tamit ñu way yàlla comme yàlla boole ñu amiin bi moom euh, ci ci ci ci ci doxalin Médina lay la war a ci système mu la ci développement Médina la donc moom dañu yéex sax dugg ci yii te yéen bi ngeen ko ubbee site bi am na ci ñun sax ñun yeneen ñu ee ne mun nañ gis bàyyi ci anam yu bëri yu dul liñ tegoon rek liir téere yi xool photo yi fàttaliku démb mais tey ci développement euh, média ak nangam nangam da ci jouer partie bu rëy ba tax na euh, loolu def na suñ xool ci site bii nii ñun bëgg nañ boo ñu koy consulter suñuy xarit luñ ci gis rek dañuy woo suñu xarit yi ñu lay wax nañ ko xool parce que dafa am importance. Oh, oh, oh. waaw dëgg-dëgg léeg-léeg nga am information boo naan est-ce que dëgg la est-ce que du dëgg mm-hmm. mais toujours da jox information boo xam ne suñ ko làmbee dañ koy gis ci dëgg bi donc ñu ngi rafetlu seen liggéey di ñaan yàlla mu dëgëral leen yàlla dooleel leen nañ dem sax bu doon ay télévision wër àdduna na nekk Télé Africa boo xam ne Alfayda Tijaaniya wala yéen lay mu ngeen ko tuddee rek yërëm xam ñu ngi ñaan yàlla jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf